di wax ci musique ndax tey ñu ngi dalal koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu musique muy Souleymane Faye ñëwoon ci studio Sud FM ngir waxtaan ak ñun ci album bi nga xam ne mi ngi ko bëgg génnee dippee ko respect album boo xam ne ñaar fukki lay am waaye li ci bees moo di njaay mi dafay nekk njaayum en chair maanaam ki ëppale li mu génnee ci koppar moo koy jënd fàttali ne lim bi ngi tàmbalee moo di fukki million Souleymane Faye noo dundee restriction yi nga xam ne amoon na ci wàllu artistes yi jamonoy Covid bi ñu nekk. mais euh, c'est un bon croyant un bon croyant daf koy jàppee ndogalu yàlla da koy jàppee tey moytu nag mm. tey moytu c'est très difficile euh, pour ñi nga xam ne amuñu ko leen jàppale sa mbokku artistes yi am na si ñoo xam ne su ma leen mais jaaxal nañ trop parce que bu ko seetloo état bi lu ñuy jàppale fa xaw a doy waar quoi dañoo <laughs> dañoo bëri nag dañoo bëri nag alors waaw dañoo bëri donc mm. sur l'actualité euh, donc mm. avec le décès de Thione Seck bon Thione Seck c'est il s'est mm. am ñoo xam duñ dee. Mm. duñ dee. Euh, maanaam tey boo tegee musique gu Ndiaga Mbaye musique gu Laye Mboup musique gu Bob Marley da ngay fàttali ne kii dee na. loolu mooy immortalisé donc euh, Thione Seck moom du dee mukk mm-hmm. du dee mukk dañuy ñaanal njabootam man ba léegi demaguma gis Wally mm-hmm. ak i mbokkam mm-hmm. am ngi tàng tàng bi dem rek joxe ñu ne ñëw na rek nga dem man loolu taxuma jóg. du loolu waaw damay bàyyi bu mu sedd. tout à fait affaire yi calme. sedd sama doom seeti njaboot gi ziar leen. des na loolu naaj sa naaj léegi wax ci Souleymane alors yaa ci benn projet yaa ngi koy wax sànq ci émission euh, ak doyen Aziz. Hmm. alors projet bi lan la ak noo ko na doxalee. projet bi euh, dama yàgg génn génnuma album. te bëgguma génne album muy nurook yi ma may génne woon bu njëkk. donc projet bi mën naa am ne bientôt cinq ans maa ngi ci kaw yàkkamtuuma ko may déglu ay musique déglu ay musique di déglu ay musique déglu ay musique déglu ay musique ba ba suur mhm. après ma tànn nag ban façon musique laa bëgg pour génn album bi mais euh, aussi bind texte yi mhm. texte yi sama m'a pris cinq ans mhm. bind texte yi bon mais léegi sotti na léegi sotti na donc ma génnee ci Euh, vingt chansons maanaam du dugg studio mais musique bi laa jëkk liggéey ba mu ba mu pare teg ne. après nag mu soog a jël paroles si di mhm. mais euh, c' est très enrichissant comme musique waaw donc. Euh, lan la mën nañu xaar ci wala variété wala. ah world music la musique du monde quoi. ok yaa boo ko seetloo même du mbalax mbalax amu ci. l' album s' appelle Respect. ok Respect parce que je m' adresse beaucoup aux enfants. damay wax ak waxtaan wax ak xale yi mais maa ngi nañ ci gis seen bopp. waaw waaw. Mhm. donc euh, mu tudd ko respect. Mhm. noonu am na mu tudd. alors nouveauté bi mooy danga ne album bi vente aux enchères lay doon. waaw aux enchères lay doon parce que. souvent producteurs yi léegi dañu ragal da nga jël sa benn trente millions wala vingt millions def ko ci benn produit pare gars yi copier ko ñu ko jënd duñ ko jënd pirater ko mhm. xam ne mën nañu ko jënd euh, jaay ko ci net bi jaay ko ci kii bi euh, aussi jënd ko aussi pour pour fi am na ñoo xam ne fierté la pour ñoom jënd ko mhm. waaw mais xam mosul mosul am fii je crois nan lay déparé enchères yi euh, au début ngi déparé dix millions dix millions ba jëm kaw quoi. dix millions jëm kaw waaw. ki ki le plus rek moom album bi waaw. alors nga nga may ñu benn affaire bu ndaw benn acapella. ba may xale ñi ma doon dóor di ma saaga di ma tëj ci néeg di ma dóor ba may jooy ki ma daan tëj ci noog di ma yedd ba may jooy laa gënoon a bëgg ki ma daan tëj ci néeg di ma dóor ba may jooy ba may xale ki ma daan tëj ci néeg di ma yedd ba may jooy laa gënoon a bëgg ki ma daan tëj ci néeg di di ma dóor ba may jooy. Eh, ñu bàyyi ne xale du fàtte xale loo ko def rek du ko fàtte. donc booy wax ak moom ngay wax jàmm def jàmm parce que moom du fàtte déjà man ñu nekk ba nekkee xale ñu soxoroon ak man yëpp dëgg am naa soixante-dix ans fàtte wu ma ko ba léegi c'est très dangereux euh, donc xale même boo ñu bari dañu wax ne xale kenn du ko wax baal si mag nga wax doomam baal ma mais euh, donc xale boo ko defee dara rek war nga ko baalu mu baal la noonu da koy denc màgg ak moom mhm. léegi màgg ak moom mooy waral xale bi mën a may papaam un million may ko cent mille parce que parce que am mu ko denc loon c'est très dangereux fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi Et puis nous recevons un invité spécial, il s'agit de Souleymane Faye. Souleymane Faye qui nous a fait l'honneur de venir euh, présenter son projet d'album intitulé Respect, un album de 20 titres et qui sera vendu aux enchères. Les enchères vont débuter à partir de 10 millions. Nous sommes avec euh, Souleymane Faye, artiste sénégalais sant bu Euh, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement Très dur, mais euh, c'est un bon croyant, un bon croyant. très dur, c'est encore dur, parce que le musicien, il a sa musique. Mm. Donc, euh, je suis interdit de jouer. Bon, je sais que jusqu'à présent, moi personnellement, je me demande comment je me suis sorti. Parce que c'était impensable. J'ai eu des moments où j'avais peur. Mm. Parce que Mais bon, moi, j'avais des amis. États-Unis, Italie, France. Mm-hmm. et Sénégal qui m'ont beaucoup soutenu. Mmh. Discrètement, sans que personne le sache. Et je tiens à le remercier. Ils ne veulent, veulent même pas que je parle de leur nom. Il y avait aussi le soutien de l'État aussi. Tout Bon, tout le monde dit c'est petit, mais on est tellement nombreux que <laughs> même si c'est des milliards, chacun a 100 uh-huh. Mais bon, le plus important, c'est de souhaiter que ça passe vite, parce qu'il n'y a pas que les artistes qui souffrent, tout le monde en souffre. Tout à le monde en souffre. <laughs> Oui, oui, oui, oui, envie de sortir. Voilà. Et déguster la musique de Suleiman Faye en, concert, en live aussi. Voilà, Donc, euh, mais Alhamdoulilah. Euh, enfin, au, Sénégal, ça va, mais si jusqu'à présent, oui. C'est pire, c'est pire. Vous préparez un album, ça s'appelle comment reste En fait, c'est un album que je travaille depuis 5 ans. Depuis 5 ans, j'écris les textes, les musiques, et je voulais ça vendre aux enchères. Mm. Vendre aux enchères, c'est-à-dire, il y mm-hmm. mm. tout nouveau. Donc, euh, je crois que c'est plus simple pour moi. À de combien euh, De vendre l'album aux enchères en partant de dix millions. Celui le plus, mm -hmm. c'est l'album. Mais euh, celui qui achète l'album, je suis derrière lui. C'est pas que je lui vends l'album, je m'en Je suis derrière lui pour la promotion, la télé, la radio, les clips. Je, suis derrière lui. C'est ça mon rôle, en fait. Ok. Donc, il y a promotion. démarche nouvelle. Oui, oui, oui, Ok, mm. d'accord. Alors, par rapport aussi donc à, à l'actualité, c'est donc le confinement et les activités qui ont été avec les restrictions dues Covid. Comment est que vous avez mm. vie qui vous euh, vous adressez beaucoup aux jeunes. mais oui. par ricochet aussi aux, mmh. aux adultes. Reste. L'album s'appelle Respect. ok parce que je m'adresse beaucoup aux enfants. Ah, et je m'adresse indirectement aux adultes. en parlant aux enfants. Mm. damay wax ak waxtaan wax ak mais maa ngi nañ ci gis seen bopp. oui euh, en fait le respect euh, est, est mutuel c'est-à-dire que ton enfant. La meilleure façon de pour mieux l'éduquer, il faut le respecter. Que l'enfant, quand tu le respectes, il t'écoute attentivement. Et quand tu ne respectes pas, il n'écoute pas. Mm. Donc, euh, y a, il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force entre papa et maman et sœur. Euh, tu fais ce que tu veux, ou tu frappes, ou tu insultes. Mm. Et ça, ça crée des situations qui l'enfant grandit avec, -hmm. avec des rancunes. -hmm. Et il grandit avec. Et c'est pas bien. Ouais. Même si tu insultes ton enfant, il faut lui dire excuse-moi. j'ai pas le droit de t'insulter. Mmh. Tu, tu, insultes sa maman. Mmh. Imagine-toi si ton enfant insulte ta maman. Mmh. Donc il faut pas aller aussi loin. Ça, ça m'arrive des fois de craquer parce que moi, engueuler un enfant déjà, dès que je t'engueule, déjà c'est beaucoup pour moi. Mm. Je suis obligé de venir, excuse-moi, mm-hmm. je t'ai engueulé, mais c'est ça, c'est à cause de ça. Il faut plus le faire. Mm-hmm. pour éviter de frapper, j'engueule. Mm-hmm. Si c'est plus dur, j'insulte. Mais quand j'insulte, c'est encore difficile, plus mm-hmm. dur encore. Mm-hmm. Donc euh, je vais éviter tout ça, engueuler, insulter, crier, tout ça sur l'enfant. Mm. Parce qu'il grandit avec, avec des rancunes et mm. après... Mhm. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas aidé leurs parents mhm. parce que ils ont gardé cette rancune là. Par exemple, il peut donner son papa un million, il va le donner parce qu'il est toujours fâché avec lui, il se rappelle toujours des mauvais souvenirs de lui. C'est ça qu'il faut éviter. C'est difficile. Difficile. Euh, euh, non non non non, pas en parler, il <laughs> c'est difficile, il faut toujours s'excuser. Tout à fait. Voilà, quand ton enfant, tu excuse-moi, je t'ai engueulé si, si, ça. <laughs> voilà, voilà. Il faut faire la paix après. Tout à fait. Voilà. <laughs> c'est mieux, <laughs> c'est mieux. c'est mieux. En tout cas, merci beaucoup. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Passez donc à Sud FM. Bah, on va venir faire la promotion ici. Inch'Allah, Inch'Allah. Comme ça, vous allez écouter les, les autres titres. Voilà. Mm -hmm. Enchanté. Enchanté. C'est moi. direz c'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.